waaw am nga encore une fois citoyen d'exception bu ñu ko wax toujours encore une fois dañuy jum parce que charte ndey réew moo ñu tënk ñu ñëpp te charte ndey réew dafa ne sénégalais bu ne ak koo doon ak foo bokk ak loo am ak loo yor ak noo mel yaa xees yaa ñuul yaa njool yaa gàtt yaa yaa yaa sew yaa ràggil yaa am yaa lu mu mun doon nous sommes tous égaux devant la loi mm-hmm. amul citoyen d'exception mm-hmm. citoyen d'exception bi bu ñu la koy xoolee c'est par rapport à ce que tu incarnes te li ngay incarner c'est pas c'est pas toute la vie mon cher mm-hmm. il arrivera où Macky entendra ancien président du Sénégal il arrivera où l'autre entendra ancien ministre mhm. il arrivera où l'autre entendra ancien directeur général donc encore une fois la ngay la ngay la ngay la ngay gérer par rapport ak li ñu la dénk mhm. askan wi dénk la ko par la voie des urnes wala boog ñu fal la par le pouvoir du décret da nga war a xam ne dafa am àpp àpp googu nag en réalité la koy incarné cër bi nga bi nga yellool dafa naan dañ la koy jox gisoo fi journaliste bu saaga magistrat de gisoo fi journaliste bu saaga président gisoo fi journaliste bu jóg di saaga ay citoyen te dafa naa ne nag loolu dafa am lu mu firndeel te itam ñun suñu démocratie am na foo xam ne toll na fa donte le par parloo bi bari na États-Unis mi ngi nii ay citoyens ñoo jóg songu le symbole de la de la démocratie aux États-Unis muy le Capitole récemment au Brésil ce sont des citoyens ñoo jóg songu ay institutions de la République tasaare ko yokk fa daj fa ba mu ay mort ak ay arrestation yu dul jeex pendant des jours ils ont bloqué toutes les institutions est-ce qu'il est arrivé une fois au Sénégal que que pareille situation am fi non dina am bar dina am par parlo dina am jàmmarlo entre acteurs politiques entre militants entre sympathisants entre nangam nangam te pourtant dafa am fu muy yem te journalistes yi boobu léegi ils ont le sens élevé de la responsabilité. gis nga amul lu fi bees ay saa yi amul lu fi bees 2011 2012 lan moo fi xewoon. avant cela lan fi xewoon au sorti de l' élection présidentielle de 2007 lan moo fi xewoon au sorti des élections législatives 2007 euh, lan moo fi xewoon par rapport aux prises de position de l' ba ba ñuy jëm ci assise nationale ba ba ñuy jëm ci xeex troisième mandat ba li nga xam ne moo di 23 juin ak li nga xam ne moo di émeute 27 juin yi amoon 2011 ak émeute marchand ambulant yi am amul lu fi amul te pourtant journalistes yi dañoo mës a jox cër ki ñuy war a jox cër liggéey bi ñu war a liggéey donc il faut quand même que l'on puisse nous dire nous baat pour que véritablement journaliste bu nekk Sénégal bañ a am place fi nga xam moo di prison tant que c'est dans l'exercice de sa profession